ci juma juma ji di masalikul jinaan yéen waa Ndakaaru tabbi ci juma juma ji di masalikul jinaan yéen waa Ndakaaru tabbi ngeen jinaane ci mbokk yi jërë jëf di ànd seen site Production site bi ngeen tàmm ñu ngi fii ci euh, Massalikul Jinaan di juma Massalikul Jinaan di juma Serigne Touba Mbacké Khadimu Rasul ay fan képp moo dox suñu digganteeg inauguration bërëb bu sell bi. di bërëb bi nga xamante ni bërëbu Serigne Touba Mbacke Khadim Rasoul ay fan képp moo si des ndaxte ñaar fukki ko war a inauguré maanaam dañu ko war euh, euh, fi gis ngeen ko euh, ci image yi mu nekk li nga xamante ne moo di wàccaa yi ku nekk kilifa bu ne yaa ngi fiy ñëw nit ñi tamit ñu ngi fiy ñëw ngir fexe tamit saytu jumaa ji ngir fexe tamit xool li nga xamante ne moom moo di jëmm jumaa ji ak tamit li nga xamante moo di bërëb bi ñenn tamit ñu ngi rafet rafetlu li nga xamante moo di euh, liggéey bi ndaxte wax dëgg yàlla liggéey bi taaru na liggéey bi tamit liggéey nañ ko ci anam bu sellee moo tax euh, murid yi ak taalibe yi fu nekk la waaye jigéen laay wax euh, ci ci ci ndakaaru laay wax ngir ñëw jéem a contempler li nga xamante ne moo di bërëbu Serigne Touba bi di jumaa Masaalikul Jinaan ci jumaa jumaa ji di masalikul jinaan jumaa jumaa juray ji fa Ndakaaru kenn masa gis mel ne wax leen mu daar leen waa Ndakaaru tabbi jinaani ci jumaa jumaa ji di masalikul jinaan yéen waa Ndakaaru ما جمت جيدي مسالك الجنان Ahmadou Mamoun